dal leen ak jàmm ci xibaar yu gën a fës ci bis bi dañu koy dooree ak jàppante yu méttee méttee yu nga xamante ni mekoon nañ ko démb ci àllarba ji euh, foofee ca camp pénal euh, bu Liberté 6 diggante nag ña nga xamante ni ñoom la ñu ci prison boobee ak ñii di euh, saytu seen kaaraange lépp nag mi ngi dooree gannaaw ab contrôle bu nga xamante ni ñoom ñooñee di saytu kaaraange foofee amaloon nañ ko ci xibaar bu nga xamante ni jotoon nañ ko nag ñu leen di wax ni ka nag foofee dafa am ci ay détenus yu nga xamante ni dañuy daal di utiliser li nga xamante ni moom moo di chanvre indien ci loolee sax le contrôle bi daal di tukkee waral nag ñu dal di fay fekk eh, ay chanvre indien yu bëree bëri loolee sax la moo andi seen jàppante ba sax eh, loolu daal di jur fitna ba prison yi daal xaw faa yënga-yëngal ba ay lacrymogène sax jot nañ ko taal eh, ci biir prison bi bu ñu sukkandikoo ci yenn xibaar yi loolee sax moom mooy itam jëriñ ba nga xamante ni moom lañ denk wàllum yoon muy Ousmane Diagne mu ngi dénk wàllum justice moom itam demoon na foofe sur le lieu ngir def li nga xamante ni moom moo di eh, constat bi yenn ci prisonniers yi nag yëkkati seen i kàddu daal ne ñoom li ñuy ñaawlu rek moom moo di eh, condition yi nga xamante ni ñoom la ñu dundee ci biir prison yi li ñu bëgg daal ñu gën leen a jàppee ay nit ndax nag jàpp na ni eh, képp kenn rek ci sénégalais yi daal mën na faa dugg saa su nekk direction bi nag daal di dëgg rek yenn kàddu yi nga xamante ni yëkkati nañ ko mu di daal maanaam wàllum présence chanvre indien loolee sax moom moo indi woon jàppan maanaam jàppante bi foofee eh, ca prison ba foofee sax itam ñu ngi xam ne que daal am na ay matelas yu nga xamante ni dañ koo daal di taal. ca Madina Gunaas nag eh, foofee ñu ne ñu nemmeeku fa ay jàppante yu méttee métti bisu tabaski bi loolee nag ba tey jii ren mu ngi wóyandi du nekk mbir mi nga xamante ni soxal na loolu waa réew mi ngir jàmm mën a dikkaat foofu loolee sax moom moo waral ña nga xamante ni ñoom ñooy suñu naataangoo yu Sénégal daal dem bay wax ni daal mbir mi ab rivalité bu yàgg la entre entre euh, ña nga xamante ni ñoom ñoo di euh, Fuutanke ak waa Ngaamunke ñu lépp nag mu ngi doore gannaaw ba nga xamante foofee nag nekk mbi bërëb bu nga xamante ni daal bu ñu sukkandikoo eh, ci yenn historiens yi daal ñoo ngi nii xaman ni que Madina Gunaas nag nekk na eh, mbir mu nga xamante ni foofee eh, xeex boobu yàgg na fa ndax nag donte bisu tabaski bu nekk dañ fi nemmeeku ay coow yi nga xamante ni jàppante yooyu sax ci fàttali andi woon na benn nit bu nga xamante ni daan na ciy ñàkk bakkanam te sax am na ñu nga xamante ni eh, xam nañ ni ko kookee ñàkk ci bakkanam takkeewul ci xeex bi ndax moom nag mi ngi jóge woon ci tool ya di liggéey waaye nag ngir ñëwaat rek ci taarixu dëkk boobee di ma Medina Gounass ñu ngi ñuy xamal ni que foofee ci atum 1978 lañ fay dal di samp këru diine googee ndax gannaaw nag ba nga xamante ni eh, kii di Thierno du baax ñëw na fa daal di am ndigal. ngir daal di sanc foofee ca gannaaw boobu nag ñoom la ñu yaatal ba yeneen itam xeet daal di fay ñëw dëkk fa waaye nag loolee ba tey taxul ni ko nag saa su nekk rek wàllum kujje di am diggante ñaari xeet yooyee mu nekk nag mbir mu nga xamante sax loolu moo waraloon kii di jëwriñ bi ngi dénk wàllum biir réew mi di Jean Baptiste Tine demoon foofee waxtaan ak ñaari kër diine yëpp ñaari xalifa yëpp nag li ñu bëgg rek moom moo di jàmm mën a dellu siwaat foofee ci diwaanu Madina Gunaas ñu ngi doon xaar saa itam ñoom ñaari sëriñ si ñu mën a gisante ngir xool ana naka la ñuy def ba daal di maanaam tempérer li nga xamante ni moom moo di situation bi lu ci mënti am daal jamono bi foo fekkee diwaanu Médina Gounass ay kilifa dina yu bëree bëri daal di bàyyi xel gox boobee nga xamante ni rivalité moo fa am diggante ñaari ñu bëri nag di xaar daal kilifa réew mi daal di dox ay tànkum jàmm ngir lu mel ni mën a bañ a amati ndax nag nee nañ saa su nekk rek bu tabaski ñëwee mbir moomu moom mooy soulever waat li nga xamante ni moom moo di xeex bi ci benn bërëb bu nga xamante ni dañ fay daal di jullee iid ku nekk nag bëgg a jël bërëb boobee def ko sa bërëbu bopp. xeex boobe saa itam moom moo waral ka nga xamante ni moom moo di eh, président eh, Gisaaw Guinée di Umaro Sissoco Embalo moom nag dafa daal di déglu sax ñu daal di tëj li nga xamante ni moom moo di benn partie frontière bi nga xamante ni daal moom moo lié Sénégal ak Guinée Bissau moom sax daanaka li mu xam ne rek moom moo di eh, gannaaw jàppante yooyu daal te gis nañu ko ay xeet ñoom ñoo ko daal di. Euh, sabab lii ëpp nag ci sécurité dëkk bi daal moom moo di ñu fexe ba daal di tëj lii di frontière yooyee li mu ci teg itam daal mooy fexe ba ña nga xamante ni ñoom ñooy aar eh, kaaraange askan wi daal fexe eh, ba daal di aar frontière yooyee balaa loolee di law dugg ki dëkkam lu ci mënti am daal itam Médina Gounass nekk dëkk bi nga xamante ni sori na Ndakaaru lool ndax digganteem ak Ndakaaru 500 eh, kilomètres la waaye nag ak fa nga xamante ni moom moo di frontière bu Guinée Bissau matul sax 300 kilomètres loolee nag sax moom nga xamante ni moom moo di. dental ba nga xamante ni daal na Amadou Bal Balde ay nitam ñoom daal li ñu euh, fas yéene def moom moo di porter plainte ndax nag ñoom sax jàpp nañ ni que mbir moomee dañu ne daal di néewal doole li ñu bëgg rek moom moo di ñu defal leen maanaam li nga xamante ni moom moo di justice ngir jàmm mën a ñëwaat foofee ca communauté bu Madinatul Huda loolee nag itam sax nemmeeku nañ ni que daanaka ay nit yu bëree bëri daan nañ leen loxo ci mbir mi ngir yoon mën a amal la nga xamante ni moom moo di am enquête am dañuy wax ba tey ci mbiru tabaski daal di wax itam daal daanaka ñeenti nit daal nañ ci ñàkk seen bakkan ñeen ñu bëri ci ñoom nag sax mel ni ñu nga xamante ni dañ doon jàppante ki ci gën a fës nag moo di tëyër boobee nga xamante ni ab ex prisonnier bu nga xamante ni moom njiitu réew mi président Bassirou Diomaye fay moo ko gracié woon boole ko ci 367 personnes yi kooku nag sax di ab chauffeur bu nga xamante ni dañ ko bàyyi woon ngir mayar ko chance mu amaat opportunité ngir dugaat ci biir société bi kookee nag moo daal di jëm paaka téer boobee mu daal di ñàkk kanam moom sax daanaka yàggul sax ci biti jamono bii rek dañ ko daal di placé en garde à beneen xeex itam bu am ci Tuuba moo di benn rakk itam bu nga xamante ni daal moom moo daal di jam magam ak paaka ñoom ñaan nag gannaaw ay xe waxtaan yu sew sew moo tax nag moom rakk ji daal di jam paaka kii di magam mu jaaree fa daal di génn àdduna moom xale boobu sax daal di jam magam moom itam mu ngi doon def classe bu troisième ca mbuur itam lu mel noonu daal di fay am mel ni daal ab nappkat ab nappkat bu nga xamante ni moom itam xaritam nappkat moom moo ko daal di jam paaka moom itam mu jaaree fa daal di génn àdduna lu ci mën tam daal tabaski bii nii bëri na fitna lool ndax nag ay ja ay daanaka yu bëree bëri nemmeeku nañ ci ba ay ñeenti nit daal di ci ñàkk seen bakkan mu mel ni daal itam askan wi jamono bii li ñu bëgg rek moom moo di ñu gën a conscientiser waat nit ñi ci wàllum yenn gànnaay yu nga xamante ni dañ koy yor bu ñu meree. moom njiitu réew mi président Bassirou Diomaye Diakhar Faye war a dem waroon dem démb ci àllarba ji foofee ci diwaanu France moom sax jamono bii mi ngi ci France ndax nag mu nekk tukki bu njëkk ci diwaanu Europe depuis bi nga xamante ni nekk na ko président de la République du Sénégal moom nag dafa dem rek ngir gën a maanaam suqali vision Sénégal bi nga xamante ni daal am nañ ko fépp ci àdduna ji moom mi nga xamante ni nag moom moo di njiitu réew mi président Bassirou Diomaye Diakhar Faye taxaw na temm nag ngir incarner li ñuy naan panafricanisme moom sax loolee daanaka bokk nañ itam fexe daal ba rupture am diggante ancien système bi nga xamante ni daal moom moo amoon ak système bu wees bi nga xamante ni moom la ñu war a tëral moom itam sax daanaka ka nga xamante ni moom moo di njiit réew mi di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye itam bokk na ci ay mbir yu mel ni wàllum franc CFA bi ak itam héritage colonial bi waaye itam tamit yenn borom xam-xam daal daal di joxe xibaar ni que moom njiitu réew mi comme ni ñu ko daan defee bu président sénégalais demee foofee dafay daal di loger ci ay hôtel yu seer waaye moom nag sax deful loolee ndax dafa daal di ànd ak ña nga xamante ñoom la demandoon foofu foofu ci France dem daal dem loger foofee ca ambassade ba mu mel ni nag loolee sax euh, maanaam euh, bokkatul benn yoon ci yàq xaalis bi nga xamante ni nguuru Sénégal dafa daan yàq yenn saa yi bu njiitu réew demee foofu ca diwaanu France ngir ñu loger ko ci ay hôtel yu nga xamante ni mën na jar ay million dañuy wax itam ci dogal bi nga xamante ni moom jëwriñ bi ñu dénk wàllum dem beeg dikk bi jëloon na ko ci bisu maanaam ya nga xamante ni moom moo wër bisu tabaski bi moom El Malick Ndiaye sax gannaaw ba nga xam ni daal jëloon nañu jogal mobiliser oto yi nga xamante ni ñoom ñoo di eh, bu Dakar dem dikk loole nag ci àddu moom moo di eh, góor a moom nag li mu jàpp rek moom moo di jëriñ gi dénk wàllum dem dëkk bi am na itam yeneen jéego yu nga xamante ni waroon na koo def lu dul ah, doxalee ko noonu ndax nag yenn saay Sénégal itam loolu waral sax chauffeur su bëree bëri di kaas ndax am na ay yu gën a priorité ka def loolee ndax nag lu mel ni ay oto war gaynde ak yooyu yëpp ñu ngi ci biir transport bi te kenn waxu leen leen dara ca boobee jamono nag ñoom góor góorgóorlu yu bëree bëri yu nga xamante ni daal dañuy joxe lii di ay tax ak yooyu ñoom saa su nekk rek ñoom lañ gën a sonal ca boobee jamono nag ñu bàyyi ay ndaw yu nga xamante ni dañuy yor ay di dem fu leen neex ci biir réew mi te yenn saay sax kenn du leen sonal ci wàllum dem beeg dikk bi waral nag bu ñu moytuwul fan ñu jëm ña nga xamante ni ñoom ñooy. chauffeur si daañu banque seen yoxo ngir la bu baax a baax ñàkk jox cër bi nga xamante ni ñu leen ko cër ci seen wàllum liggéey boobee ñoom itam sax bokk na ci seen xeex moo di yenn entreprise yu nga xamante ni maanaam en ligne la dañuy taxaw temm nag ngir fexe daal ba daal di amal la nga xamante ni moom transport te ñooñee duñu fay benn yoon lempoo mbokk yi mu ngi noonu lii ma ko doon fës tey ci xibaar yi di leen jox di gis waa jàmm jërë ngeen jëf ci ànd bi.